choix on joue euh, wax ni joueur mauvais choix dans un match mais il faut que nous réduire ces euh, euh, mauvais choix Hein? faire toujours du positif di euh, plus de positif que que de négatif quoi donc si on nous nous corriger je pense que l'équipe euh, euh, bi dina stable par rapport à match voilà donc aujourd'hui on a vu une équipe de Sénégal très remaniée de ce nouveau de la compétition à cause du Covid avec blessure bi on a gagné dans la douleur mais ba tey de ci li nga le gardien de but qu'a choisi Aliou Cissé à la place du jeune Fatih mu joueur local bi nga xamante moom la doon yaakaar dina ñëw le jeune Fatick mooy Casa Sport bi muy nit ñu seeni jeng donc looy wax ci prestation seeni jeng bon je pense que copie propre la ñu indi la hmm. euh, il faut dire que euh, maa ngi koy wax en début de reportage euh, que Aliou Cissé dafa am chance ou am 3 à 4 gardiens je dis parce que seetaan la gën a suñu gone gi mais ñi ñu jot seetaan que ça soit muy Mendy que ça soit muy Gomis que ça soit muy Seyni ces trois gardiens yoo xamante ni vraiment vraiment il n'y a rien à dire ah. Hein. Hmm. Seyni lim nu woon tey ça veut dire que tay même buñu ñu pertoon Gomis perte. perte perte Mendy am na lu foo xam te ne mën nañu fa. Mmh. sukkandiku mmh. vraiment tay il a été calme. Mmh. vraiment serein serein. Ah, euh, fu mu war génn mu génn. bu waree bu waree japp mu dem japp bu waree relancer avec le pied mu génn participer dans le jeu donc euh, il a il a il a il a il m'a séduit hein sincèrement donc c'est c'est la première fois mu jouer un match complet bo xamanteni vraiment wane na lepp li nga xamanteni ñi ngi ko doon xalaat ci euh, par rapport ak euh, son niveau de jeu par rapport ak aussi xeyna dafa dafa am malchance bok ak ay gardien yo xamanteni mhm. bon c'est des c'est des gardiens aussi de classe mondiale maintenant des calibres parce que Mendy ken waxatul Gomis légui c' est des gardiens de classe mondiale. Mhm. donc faut nga suivre sen ginaaw mais il euh, y a des équipes yo xamanteni tay bu fa demoon il sera titulaire indiscutable. donc donc lool une chance la pour ñun. Mm-hmm. que situation yu mel ni am parce que euh, euh, euh, je le disais je disais que cette CAN CAN la boo xamante ni vraiment on a besoin des 23. Mm-hmm. boo koy wax boobu amaguñu sax ay ay ay ay ay ay ay ay cas de cas de Covid mais boobu maladie baa ngi fi. Mm-hmm. mais je disais que CANu 23 ça veut dire que tey ñi nga xamante ni mooy le troisième gardien mën na ñëw à un match boo xamante ni mooy doon la titulaire.